ni réew mi ni muy doxe nii am nañ ci wàll waaye boroom réew mi am na ci wàllam ma ne réew mi ni muy doxe nii am nañ ci mi yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet SMTV suñu média la télé que nous partageons ñuy amaat mbégte ak bu baax di leen dégtal li nga xamante ni loolu mooy seen chronique comme niñ koy defee 15 jours yu ne ci seen groupe bii di SMTV tey nag pour ñu bañ a guddal wax ci rek dañuy daal di tàmbale suñu njaal jëmale ko ci waa Medina Baye jëmale ko ci umma islamique bi yëpp di jaal xalif général bu Medina Baye Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass ñu ngi koy jaal ki nga xamante ni moom mooy papa Akhibou Niass di ko jaal njabootu Cheikh bi yëpp ku nekk xam ne ni moment bi ñoo ci xëccoo bu tar bu dox ci diggante parti bi di parti Pastef te Ousmane Sonko daal di ko jiite ak wa DGE ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllum élection bi ñu gis benn patt pattaaral boo xamante ni ñëpp ñoo ngi koy ñaawlu lu jëm ci wàllu piis parrainage yooyee nga xamante ne nii waa DGE ŋànk nañ ko ba dëgër këj ne duñ ko jox ki nga xamante ne nii moom mooy mandateer bi Ousmane Sonko yabal pour mu jëlali ko lii di fiche parrainage bi ba tax na nag ñëpp nekk ci njaqare ak tiitange am sax ñuy questionné wu ba xam ndax élection dina am mbaadu am dina am ndax déet mu nekk na question boo xamante ni fu mu toll nii sénégalais yëpp moom lañ nekk di laajte ñu ne leen élection dàq ko ci miim réew gulleet bu fekkee dina am bu fekkee dañ ko nara a dàq gulleet ñu gis ko ci Sénégal ñun nag am benn taxu seetlu boo xamante ne dañ ko ci def en tant que chroniqueur ñu gis benn absence bu fort boo xamante ne dafa nekk ci opposition bi ci booru Ousmane Sonko ñu gis waxtu yi nga xamante ni heure bu ko police daan seeti ak tamit instant biñ ko tëjee biir këram opposition bi yëpp da ngay gis ñuy daal di bàbbeeku di ñëw fi nga xamante ni moom mooy cité góor góor gi pour nemmeeku ko parce que xam nañ heure bu ñu jógee dem média yi topp leen ñu médiatiser ko ñu gis ni tëj ko wante gisuñ kenn ku yëy yàbbi wala kenn koo xamante ne taxaw nga manifesté wu ne da dañoo war a jox Ousmane Sonko li nga xamante ne nii loolu mooy ay fiche parrainage ñu gis ne nag lu leen ñëpp daan tuumaal moment bi Ousmane Sonko nekkee fële nga xamante ni moom mooy Ziguinchor ku nekk jël vol dem wàcc aéroport Ziguinchor sinap ak say nit ñëpp ne woon yàqantuñ dara lu dul Ousmane Sonko. bañ a bokk ci élection yi ba ku nekk xëcc jëmale sa boor moo tax li ñuy waxoon tey loolu lañ gis parce que amuñ benn opposant bu ñu gis bu taxaw yoy yàbbi ci mbir mi nga xamante ne nii am na lu dul ay avocat Ousmane Sonko mu nekk nag lu ñëpp du ñaawlu mu nekk loo xamante nii kenn rafetluwu ko du question dañuy wax keneen ne dañu far ci waa Pastef déet comme li may wax rek fariñ ci waa Pastef fariñ ci APR ñun ñun ñu faral mooy askan wi ak suñuy internet yoo xamante ne dañuy déglu suba ngoon di ñu bàyyi xel ba tax la nag li xew nii képp ku ne rafetlu na ko rek dafa fekk ne yow da nga yàgg bëgg ñu jàpp ki nga xamante ne nii moom mooy Ousmane Sonko ba ñu xañ ko li nga xamante nii loolu mooy mu bokk ci élection yi te fu mu toll nii ñoo ñooñu doon ko jege chaque vendredi ñu woote point de presse loolu gulleet kenn gisatu ko kenn gisatul ni ki mel kenn gisatul fenn président yeewi askan kenn gisatul fenn mandataire ki nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci yeneen parti politique yi ngam taxaw ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko boo bëggee dégg dëgg mooy nekk dañoo sentir benn vide bu am ci Pastef ci opposition bi daan taxaw dañu tudd benn tur wante opposition bi ngànkoon yëpp jëli Ousmane Sonko lan lañ gis keroog ba benn manifestation amee ku nekk ñoo taxaw jël micro wax benn kàddu ñaari kàddu c'est ñu koy ñaawlu nag di wax ne nit su ngeen àndee da ngeen a war a ànd muy neex suy naqari da ngeen a war a ànd ak moom juge yi keese la ñuy dégg ñuy wax lu jëm ci parrainage bi avocat Ousmane Sonko keese la ñuy ñuy wax lu jëm ci wàllum fiche parrainage ba tax na nag ñu ne képp ku rafetlu lu mel noonu rek da fekk ne da ngaa dundul tey lu Ousmane Sonko di dund donc mu nekk nag loo xamante ne nii phénomène la bu ñëpp teg seen bët di wax ne politique bu ñu gis mu am suñu réew di Sénégal bopp sa bopp lañ ko mën a tuddee ndaxte loolu la opposant loolu la opposition bi wane lu jëm ci parti bi di parti Pastef ba tax na nag tey bu ñu defee taxaw seetlu dañuy gis benn vide boo xamante ne dafa am ci benn camp bi muy camp waa Pastef Pastef nërmeelu na Pastef suulu na ñan ñoo ko suul amaana ñu ne état bi la état bi suul na ko wante boo ne état c'est ñun aussi suul nañ parti bii di parti Pastef rawatina ni ñu gënoon a jege Ousmane Sonko mais où sont les Déthié Fall où sont les autres seen doomu ndey la yéen fu mu toll ni ku nekk ngi dema ah, di def ji tournée économique tournée économie bon ci lu ñu wax nee na loolu la ñuy def ku nekk ngi dem di wuti ay parrainage donc Ousmane Sonko ñoo ngi ko bàyyi mu nekk ci benn coin nekk ci benn cas bu critique boo xamante ni kenn demul sax jox ko loxo pour xëcc ko mu génn bu ñu waxee ñu ne état bi état bi état bi l' état politique c' est de bonne guerre. état jekku na Ousmane Sonko def nañ ko luñ koy def donc tey yéen aussi yéen a fexe ba yey yàbbi ne lii du fi amee walla lii bu fi naree amit suñu waa ji duñ ko bàyyi muy wéet mais vide bu ñu sentir ci Ousmane Sonko population bi yëpp waa jaspora waa Sénégal tout le monde ñoo xamante ne dañ doon ànd ak ki nga xamante ni moom mooy président Ousmane Sonko tey gis nañ tey benn vide boo xamante ne dafa énorme lañ ko mën a woowee amul benn opposant boo xamante ne tey jey jege nga Ousmane Sonko pour may ko loxo pour mu jafandu amul kenn koo xamante ne woo nañ ko ci débat politique muy wax lan moo tax joxuñ Ousmane Sonko fiche parrainage yi te ngalawaay bu ñu fàtte démb tey maire yu nekk Sénégal yëpp ñu ci ëpp ci yeewi la ñu génnee mu nekk lu ñaaw loo xamante ni képp kuy patriote tey yaa ngi koy ñaawlu comme li may wax rek on ne parle pas que dañuy défendre Ousmane Sonko mais les faits la ñuy wax bàyyi leen di ëlëmal xelu askan wi àndoo nag ak askan wi seen bopp ngeen àndal nañ waxante dëgg ku rafet lu lii rek loolu yow la kon gëstuwaat xool seen taxawaay askanu Sénégal xam kan mooy dëgg dëgg dëgg dëgg ku war jiite suñu réew ëllëg opposant yi ma gis ñii ku ci jiite sa bopp ngay àndal ndaxte tey baleen sun ko taxawoo ba ñoom ñëpp bañ taxaw soxla li nga xamante ne loolu lañ amoon ku ci nekk da ngaa beru kenn jafanduwul kenn may mayul Ousmane ko jafandu ci moom pour mu génn kenn toogul di ko xeexal stoppé activité am pare pour jàppale ko pour mu jot fiche parrainage am non ku ci nekk moo ngi dem ci ay activité ku ci nekk moo ngi lijjanti ji ay parrain ay parrainage am lu ñu bëgg mooy falu lu ñu bëgg mooy dem toog ci siège bi kon man su ma taxawee ñu naan dañuy xeex liberté ça me riir mu nekk nag loo xamante ni kenn rafetluwul ni ki mel di seen chronique bi nga xamante ni dañ leen ko doon amal alarba bu jot maanaam fukki fan fukki fan ak juróom yu jot ci euh, weer bi donc di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba quinze euh, quinzaine bii di ñëwaat ci seen beneen chronique ngeen ci ànd ak seen xarit seen mbokk ak yi bu jong ki nekkoon ci wàllum xarale ji yor wàllum technique bi yëpp di maam Seydi jërë ngeen jëf je vous souhaite une excellente Euh, mois de novembre jaa mani réew mi ni muy doxe nii am na ci wàllam. réew mi ni am nañ ci wàll waaye boroom réew mi am na ci wàllam.